ci point de presse bi nga xam ni coalition Yewwi Askan bi moo ko woote sabab bi daanaka mi ngi ci communiqué bi nga xam ni moom la ñu jox presse bi yéen ñëpp gis ngeen fan yi li xew ci Sénégal mel na ni c'est la première fois ñuy organiser ay élections locales te yàlla xam na ni ay élection locale am na fi ba tàyyi kon kenn mënul wax ni bii nga xam ni moom la ñu war organiser deux mille dafa particulière dafa compliqué ba war a tax opposition bi Yewwi Askan bi plus particulièrement seen ay liste ñu koy rejeter un peu partout ku gis ñi toog ci taabal bi xam seen expérience ci organiser élection def ko ba tàyyi ci condition yi gën a compliqué que yi kenn mosu ci lajji ci benn commune ba ñu naan tey ay commune yu commune ak ay département wu département seen coalition dañ fa am problème problème bi gën a yéeme ngeen suivre que mooy bi nga xam ni moo am Matam Matam umpul kenn ni département bi nga xam ni la dafa am solo pour opposition bi te ca njëlbéen lépp luy disposition yu opposition bi waroon jël pour encadrer ay listam mën ko déposer dans les délais avec ses mandataires disposition yooyu opposition bi jël na ko mais ki nga xam ni moo doon mandataire bi ñu njëkkoon choisir jour bi ñu waree déposer liste yi boobu la jógee coalition Yewwi Askan Wi dem coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu amee njot ci rapprochement bi nga xam ni mi ngi doon am entre moom ak responsable ya ci bis boobu ba ñu waxtaanee ak leader yi toog fii lañu génne beneen liste de mandataires maa ngi trace liste boobu ban waxtu lañ ko envoyé parce que nag ay professionnel la du ñu def yëfu amateur moo tax 19 heures 42 le mail est là en tant que mandataire national man ma envoyé mail au préfet du département de Matam ginnaaw bi ñu concerté wu ba pare ni ko mandataire ya fa ñëkkoon nekk bii liste ñu lay envoyé mooy ñëw annuler liste boobu ba pare remplacer liste boobu kon ñii ñu la envoyé ñooy mandataire yu bees yu Yewwi Askan Wi mandataire yi ñu tànn ku nekk ci ñoom individuellement dan la envoyé sa lettre d' accréditation mandataire dem présenté ci sous-préfecture yi ak préfecture avec seen lettre d'accréditation yuy wane ñi ñoom ñooy mandataires yu bees yi ginnaaw bi ñombe boobu amee mais ñoom ñëpp ñu refuser leen ñu leen du leen recevoir déjà ci biir préfecture yi wala sous-préfecture yi et leen may possibilité ngeen def liste pour Yewwi Askan li gën a garaaw ñu ni balaa ñuy changer mandataire bi ki nga xam ni moo doon mandataire départemental bi di mission Ngom tant que ñëwul duñu changer mandataire ki nga xam ni xëy na ci suba ni léegi dem na benn Bokk Yaakaar nga ni moom ngay xaar mu ñëw pour changer la ay mandataire Yewwi Askan alors qu'à 19h42 il n'était pas encore minuit vous convenez avec moi que amul benn horloge bu mën wax 19 heures 42 mooy minuit fenn ci biir Sénégal 19 heures 42 à Dakar sa peut pas être minuit à Matam je pense décalage horaire boobu yegg duñ fa alors pour dire tout simplement que lu doy waar la nag introduire nañu recours démb à 11 heures 50 fële ci cour d'appel bu saint pour que ñu mën a arrêter loolu nga xam ni moo am te boo génnee foofu yëg ngeen lii nekk en cours au niveau de Sam Notaire ak Golf Sud nga xam ni ci biir région de Dakar département de Guédiawaye ku xam ku nekk xam na ni département bu am solo bi nga xamee ni sunu mandataire yi dem na di liggéey ak ña fa nekk boobu préfet bi nekk fa mais ay service am ñi nga xam ni ñooy suñu bi ñu demee bi ñu gisee ni yenn dossiers complet wu dañ leen jox la possibilité de compléter et de revenir bi ñu complété dellusi ñu leen di indil ay jafe-jafe ci complément yi loolu lépp pour rejeter et ñoom may xamal léegi ak monsieur Thiam que ni ñoo ngi koy wàññi officialiser pour rejeter liste Yewwi Askan Wi ci ñaari commune yu am doole ci biir département de Guédiawaye loolu lu muy tekki ak ku nekk ci département boobu loolu di beneen biir te bi mu amee en tant que mandataire national man sama bopp woo naa sous-préfet ba fa nekk ni que lii ñu may wax ni moom ngay waaj a def rencontré naa ko ci yenn gox mais sous-préfet yi fa nekk bi ma waxee ak ñoom danoo accepter liste bi ndaxte lii loi moo ko wax am ngeen ci 48 heures li ci topp possibilité ñëw complété possibilité ñëw également lii nga xam ni wax nañu ni des na nga xool noo ko defaree ba mu baax te ba démb d'accord ngeen ni ñoo ngi woon encore ci 48 heures parce que mercredi la woon démb doon vendredi loolu di wane ni ñoo ngi également ci lu leen neex la ville de Pikine c'est encore plus grave bi ñu ñëwee dal leen wax ni ci list bi am na huit yu manqué neuf yu manqué neuf yooyu ay femmes la il faut ngeen compléter ñu dem defari seen dossier ba mu baax ñëw indi di compléter ñun leen duñ ko nangu duñu jël dossier te loolu démb la encore utiliser que comme motif de rejet ville de Pikine xam ngeen également ka fa nekk boo leen xoolee fi yooyu yépp am boo xoolee ca gannaaw rek da ngay gis ña ko amal ak la leen ci tax a jóg mbuur suivre ngeen que dans la presse le président Cheikh Youm est là fa la jóge ñoom dañ leen sax refuser le mandataire mu accéder pour mën a déposer pour mën a également expliquer wu ak préfet ba fa nekk pour mën a valider liste bi nga xam ni mooy listu Yewwi Askan Wi ñoom it introduit nañu recours fële ca Thiès problème bu ñu mel am nañ ko Kaffrine problème yu nu mel am nañ ko Saint-Louis ci département de Saint-Louis am nañ ko ci commune Fass nga xam ni dañu ni ci liste suppléant yi vingt lañu déposé au lieu de vingt cinq ñoom it kenn nangulu leen complément yi boo jëlee commune Gandiol ñu ni li ngeen déposé ci suppléant dafa ëpp quinze au lieu de treize xanaa da ngay wàññi li ëpp rek ni ko baax na mais jël loolu comme motif de rejet boo jëlee commune bi nga xam ni mooy Gandon ñu ni candidat bi moo signé à la place du mandataire sous-préfecture moom léegi dafa mel ne xëy na marché Sandaga nit war na mën a ñëw dugg ba signé ci place keneen léegi nga imputé loolu liste ba ni que ki nga xam ni mooy sama interlocuteur man administration ak yéen coalition xoole naa ba kooku signé wul ba ma bàyyi keneen signé mu dem léegi ma ni léegi lii baaxatul parce que keneen moo waroon signé que mandataire xam nga loolu aussi ay caaxaan boo xoolee département de Saint-Louis la xewee boo xoolee Kaffrine xam également lu ñu moo am au niveau de Gorée am au niveau de Foundiougne am au niveau de Médina Yoro Foulah am au niveau de Balo am dans beaucoup de communes yi nga xam ni ñoo nekk ci biir Sénégal bu ñu doon continuer lim bi conférence de presse bi point de presse bi yëpp ci loolu lay yem mais li ëpp solo mooy boo remarqué benn mbir nga gis muy génnee fu ne nga xool dénominateur commun wu mbir mi mooy mën a tax nga am la bonne interprétation des choses la bonne compréhension mën am également la bonne orientation du point de vue décisionnel moo tax ce matin loolu moo nu xaw tardeel tuuti dañu nekkoon ak sunu ay avocat fii ci suuf waxtaan ak ñoom ci recours yi nga xam ni fii leeg altine daanu déposer lépp ndaxte am nañu 72 heures délai franc la pour mën a déposer ay recours ci cour d'appel yi nga xam ni zone yi problème bi am zone yooyu cour d'appel yooyu ñoo leen di couvrir suñuy avocat ñoo ngi ci travailler et dans les prochains jours daan ko déposer fépp mais lii ñu jot a lim daan leen defal recensement complet bi dans toutes les communes envoyé leen ko yéen ci seen bopp daa ngeen am une bonne appréciation de cette forfaiture bi nga xam ni kenn waralu ko lu le président Macky Sall et certainement tout à l'heure sama collègue yi daan ci dellu si